asalaamaaleykum alaikum euh, yi may dellu si waat ci les vidéos de Barthélémy Diaz euh, l'officiel ñoo waxtaan Mboki. ak mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi njëkk massawu di jaale askanu commune Ngor may euh, massou bu baax a baax suma doomu ndey monsieur le maire de Ngor monsieur Magaye Ndiaye di ko massawu di ko encourager di euh, ñaax tamit askanu Ngor ñu gën a dëgëral seen taxawaay parce que wax ci mooy tey état bi lu muy def tey nii foofu la ko naroon doore mooy waxtaan waxtaan parce que mbiru suuf biir Dakar particulièrement euh, dafa doon lu jaaxal askanu Sénégal mais surtout askanu Dakar moy nu sax saax souf. xam nañ que Dakar dafa am spécificité moy lu woy les villages traditionnels donc euh, guina len di di gouvernement du Sénégal ñu gëna sax ci parce que souf, norul euh, jaral ñenn euh, parce que su ñu demee tey ba di boom ay xalel ci mbiru suuf kooku wax dëgg yalla euh, responsable non nañ nangu assumer ses responsabilité yi xolat sen taxaway parce que jaay d'olé, wax dëgg yàlla gisuñu tay nak la ci nit ci mën a ndam donc euh, ñu ngi wa bu baax baax population Ngor yalla daal dafa dogal ma ngi bitim rew wante su ma ñibbisee incha allah damaa fas yéene sol su may dàll dem Ngor masu monsieur le maire jaale askanu Ngor mbokk yi ginnaaw bu ma waxee loolu actualité bi yéen ñëpp xam ngeen ko ngeen may ma nag ma baalu àq te di leen di baal àq parce que Sénégal tey amaana am na feneen fu ñuy xaare kon nak euh, nonu def suñu ken kattan ba ken bañu un motax may sakku ci coalition yewi Askan bi ci yar ak nañu may euh, rek yi mais surtout di jël à témoin le peuple sénégalais parce que damay dégg tey commentaires yi ay kilifa di de ay kàddu ci coalition bi di wax ni que coalition bi euh, dialogue bi et que coalition bi doon dialogue bi may fàttali mbokk yi rek ba ñuy sos coalition Yewwi Askan Wi ñeenti courant la woon ñeenti kuréel la woon benn bi moo nekkoon PDS bu président lay Wade beneen bi nekkoon PUR bu suñu wóojur sëñ Moustapha Sy beneen bi nekkoon PASTEF bu président Sonko bu ci tegu nekkoon taxawu au président Khalifa Sall ñu door waxtaan donc mu un cercle restreint Nous waxtaan di waxtaan ci waxtaan bi nous Nous beddeeku parce que nous devons ñu nañu que a que à quatre ñuy dem restreint. niveau bi nous parce que dafa benn parti bu ci en l'occurrence Pastef bu fa comme nous ñëw ñun jamono gogu suñu xalaat moy d'accordone dañu d'accordone ak quoi Pastef parce que effectivement dañu jàppoon ni que loyauté normal la woon ñoom ñu ne dañuy ñëw ci coalition ñëwaale ak euh, sen euh, soutien wa PDS lank bañ né parce que lolu su amé dañuy compter ay voix donc que ñuy ñëw indalé sen mbokk yi indalé sen soutien yi indalé sen xarit yi ñom ñofay fay voix

kooku ñun dañ koy ñaawlu parce que dañuy waxante dëggate yàlla tax amul benn acte bu coalition boobu tey teg pour mën a def seen kenn kàttan ba kii di Khalifa Sall lu ñu teg ci kawam ñu mën ko tekki maa ngi rappeler à l'endroit de ses leaders et je prends le peuple sénégalais à témoin 2014 ba tey Khalifa Sall mënul bokk ci benn élection Sénégal 2014 ba tey mënul bokk local mënul bokk législative mënul bokk présidentiel kon wax dëgg yàlla je pense que ginnaaw bu Khalifa Sall jotee am benn mandat ñu fokkatiwaat ko ci loxoom ba tey Khalifa Sall mënul bokk ci dara te ci coalition Yewwi Askan Wi ñun bañ ci dugg ñun calculé wuñu ay leader wala ay parti yu am ay soutien ñun lu ñu xooloon mooy l'intérêt général ñu àndandoo bokkandoo benn ndey benn bay xeexandoo te def nañ ko local yàlla defal la sutura ñu defaat ko euh, législative yàlla tamit defal ñu sutura kon nag tey à l'endroit de ces leaders yi taxaw di nekk ils étaient pas informés ma rappelé leen que on a toujours travaillé en cercle restreint tey mbokk yi mbir bi nu muy ñuróo mooy dañu bëgg jël coalition bi mu nekk coalition intérêt coalition wu clan te loolu dañ koy ñaawlu parce que coalition bii coalition wu askan wi la kenn amul droit taxaw bëgg ko aakimoo wala bëgg ko jël ni moomelam tey lu ñu am ci coalition bi dañu am benn groupe yu taxaw ne ñoom d'accord ñu ci dialogue bi wante ñoom xam nañ ko ñoom dinañ bokk élection ala kuli àll te ñun wax nañ ba pare ñun que dinañ def suñu kenn kàttan te ba tey fu ñu teg suñu tànk duñ ko fa teggi pour que candidat bi que candidat le prochain président du Sénégal donc amna ñu nga xam xam nañ ba que bokk nañ ci élection yi kon apparemment ci élection ils sont inéligibles Le groupe bi muy groupe ñom dañuy xéxal nit wala tant que la bëgg coalition bi loolu la bëgg

li di suñu candidature luñu gëm moy dinañ def suñu kenn katan ba mëna a bokk ci élection yi té waxtaan su ci noree nek stratégie tamit dinañ ko jël en considération mais la wax ci nous comptons aller à ce dialogue parce que coalition Yewwi Askan bi mi ngi commencé di bëgg ñu rôle lénen ñun dugg ñu ci mouvement de soutien ñun dugg ñu ci groupement de soutien

dañ may yar ci bàmmeelu biir man parti socialiste laa laa laa yaroo parti socialiste laa bàyyeekoo am na lu ngeen xam ne du suma cër man munuma ànd ak nit di ko xeexal man ba may taxaw ne kii mooy suma candidat su ko yàlla mayee aafiya moom laay jàppale su ko yàlla mayulee aafiya diw laay jàppale te diw boobu bu ma koy bu ma koy tudd amuloon benn dossier justice ma tudd ko rek te yàlla tax ak yéene wante yàlla nañu yàlla àtte tey ñu tey ñu may bëgg a fu ma dëkkul du ma ko nangu moo tax ma ni daa yëkkati ay kàddu parce que Sénégal ñëpp a ko bokk bëgg lëndamal xelu nit ñi dama ne euh, nit ki sooy wax dangay wax jusqu'au bout man jàppale naa fi nit dimbali naa fi nit defaral naa fi nit lu ngeen xam ne nii maa ngi jógaru ci kàddu yi su ma yoon tegoon tey loxo

ak président palais xëdd ak ben leader wu yewi askan bi wante leader wu yewi askan bi batay waxu waxugu len lu mu toto sekk ci waxtan ak ndaw bu président Macky Sall jot jotoon ko yoni moom nak amna droit dalal ndaw bu kay Macky Sall di Yoni. wante man mi awma droit di dalal ñetti yoon suma kër ay ndaw ñu ñew di jema dox jam euh mbokk yi ñun yàlla def ñu baaxee xel na ku nekk xalaat jarul xuloo jarul xeex su nekkee Sénégal yi ñu tax nañ ko teg ci yoon suñ ko tegee ci yoon kenn du son yow falogoo sax yaa ngi saage yaa ngi xaste yaa ngi xuloo yaa ngi menacé yow bés bu la yàlla baaxee la pouvoir loolu lan yow xanaa kon da ngay lekk ñi ñi rek wax bi jeex moo tax ma ne mbokk yi nañu xoolaat suñu taxawaay te xoolaat ëllëgu Sénégal

mom la gëm té ñuy wax ñëpp nak yeen sénégalais xamanté xamante nañu yéen xam ngeen est-ce que man yàggal yàgg naa xeexal Sénégal am dét ñu ci bëri ñuy wax ni tay ba may xeexal Sénégal ñom fuñu ñu ba may dat may pour Sénégal ñom fuñu ñu ma ngi dégg ñu bëri ñuy wax mané len man ba may dégg monsieur le maire ci 2009 ñen ñi ay fonctionnaire rek lañu won musul dégg sen tur ken musul dégg sen santé ci politique En 2014 ils étaient dans l'anonymat total Quel musul dégg seen Moussoul musuñu woon toj fenn lu mooy dëgg bi ba assemblée nationale di que député à l'Assemblée, membre du bureau de l'Assemblée nationale ils étaient dans l'anonymat total ñun ñeewuñu kenn wante tamit du nous nangu ken di ñu yeb nangu ken la manipulation a trop duré le mensonge a trop duré te wax naa Barthélémy Diaz, ngeen ko seqal fu ngeen teg ma teggi ngeen tegaat ma teggiwaat parce que da ngeen moomul nit ñi mu leen toog ci dëkk bi ngeen foog ne vous avez instauré ici la politique de la pensée unique ça ne passera pas dans ce pays et non plus ça ne passera pas dans Yewwi Askan que les choses soient bien dites et bien comprises ñëpp pas respecté mais dinañ ma respecté tamit du discussion du négociation c'est obligé et obligatoire Non leen di tëddee inshallah Inch'Allah te ma bëgg nak leeral lenn ci xelu militants yi ak sympathisants wu taxawu Sénégal lu ngeen xam ne ni même suñu nekk ci dialogue ñu koy waxtaane ci dialogue bi fépp fu ñu wootee manifestation ak taxaw ak taxawaay pour xeex 3 troisième mandat na ngeen teew parce que ñun tey benn adversaire kese lañu am mooy président Macky Sall adversaire bu ñu yéenee jàmm ba ko jàppale mu mën a dem ci jàmm ak salaam bàyyil ñu dëkk bi ci jàmm ak salaam moom la ñëpp nàmm wante nag yàlla ak ay dogalam lu ñu nangu lu ñu namoon ñun tey ñii mooy ñëpp bokk loolu mooy yoon loolu mooy dëgg mais malheureusement dans un pays où plus personne n'a espoir en cette justice ñu am yaakaar bés bu yàlla jëlee dëkk bi teg ko suñu ay loxo justice justice bi ñu mën ko réformer loolu mooy kàddu yi mbokk yi te euh,

ba may dugg ci coalition Yewwi Askan nous ñu dem ba abonnés tey Santayal, ngi sant gagnez le sur yépp nañu suma page loolu ça s'appelle la stratégie politique Barthélémy Dias say wax ak yéen yéen xam ngeen ma ndaanaan bi mooy wax ak Dakar ak ëllëgu Dakar te xam ngeen tamit lu ma namm ci Sénégal man man askanu Sénégal particulièrement askanu Dakar ñoo mooy yónni te yàkkamti ma na wax ji leer képp ku am cofeel ci man képp kuy gis boppam ci suma liggéey képp ku am yaakaar ci Barthélémy Dias ak ci ëllëgu Sénégal maa ngi sakku ci yow ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam na nga abonné waat suma page Facebook parce que signal bi mooy lan mooy de trois cent trente mille ñu wàccaat ba deux cent quatre-vingt mille

di dellu siwaat di jàllewaat askanu Ngor ak euh, toute la communauté lébu ñu ngi gërëm ñëpp wasalaam